Ama Baldé bu jëm ci bés bu rëy muy sayu dimanche la ñuy wax rek ndax dimanche jot na ba pare wax ji jarul muy bari seen champion ñëw na gis ngeen ko saafoonte na ak yéen li ñu koy njëkk a laaj mooy Ama bi nga dugg si depuis 15 heures stade bi fees autorité Pikine gis say frère gis say sœur yëpp def benn taw bu topp sa ginnaaw tey di ngeen di gis ci instance bi lan nga yëg sa xol am lan ngay wax li nga xam yëpp dañuy tege ama te yaakaar ko la sa waaw ginnaaw ba ñu sante yàlla julli si yonent bi di santaat yàlla bu baax waa julli si yonent bi di santaat yàlla bu baax waa julli si yonent bi ah, di sant sama ñaari waajur ñaar sama papa yàlla ko suñu borom xaaral ñaanal sama yaay yàlla ko suñu borom bàyyi ba mu gën a fekkee sama njëriñ ñaanal sama si sama mag si bala yàlla ko fi yàlla bàyyi ba si kanam kanam kanam ñu mën ñoo taxaw di sant nag bu baax a baax di sant Serigne Sall bu baax di santaat Serigne Sall bu baax a baax di santaat Serigne Sall bu baax a baax di sant sama wasila Serigne Abdou Karim Mbacke maa ngi koy ñaanal yàlla ko suñu borom defal jàmm waaw yàlla fi yàlla bàyyi moom ñu gën ñoo taxaw suñu Abdou Karim Mbacke di gërëm sëñ Afia di sant sëñ Tako di sant sëñ Atex Mbacke bu baax a baax a baax a baax maa ngi sant sëñ Atex bu baax xam nga sant sëñ Cheikh Oumar Mbacké bu baax maa ngi koy ziar wala Daaru Salaam. waaw sëñ Cheikh Oumar maa ngi koy ziar sant di ko gërëm di gërëm nag di gërëm njabootu Serigne Touba yëpp di sant njabootu ma Maodo Malick yi maa ngi sant waa Tiwaawan bu baax a baax di leen santaat bu baax di sant waa Kaolack di leen sant bu baax waa di sant waa Laayeen yi waa Yoff xam nga waa Kambourou maa ngi ziar bu baax a baax ziar Sénégal bi yëpp rawatina waa Pikine xam nga di gërëm sama dëkk sama dëkk turandoo waawal jaxal maa leen sant bu baax a baax waawal jaxal sant waa Guinée waa Sénégal waa Yoruba Kunda waa Ponka fulaanu yëpp fulaanu képp kuy fulaanu rek maa lay woo di la sant di sant sama ah, sama mbokk yaay lébu yi maa ngi sant waa Medina bu baax a baax di sant fukki penc yi ñaar yëpp fépp lébu nekk rek Ngor Wakam Yoff Kayar Bargny waa band ba njaayeen ñëpp maa leen woo fépp ku sama mbokk nag rek maa leen woo surtout maa rawatina nag waa Pikine dama leen sant bu baax a baax a baax a baax waa Pikine aw ma seen fay parce que gis naa boobu rek a nga say weer ba léegi képp koo xam ni nekk na Pikine rek yaa ngi taf sama tableau am si man confiance doyloo ma yaakaar maa leen ñaan yàlla bu yaakaar tas maa leen sant bu baax a baax di gërëm nag suñu président Modou Gueye maa ngi koy bu baax a baax gis naa mu taxawee bu baax a baax sant yàlla bu baax a baax a baax di sant nag ah Pape Gueye Pape Gueye maa ngi koy bu baax di gërëm Abdou Ñaaña maa ngi koy bu baax a baax képp koo xam rek jàppal na ma maa lay sant bu baax a baax comprendre di ñaan di sant nag waa Pikine bu baax a baax a baax mobilisation bi ama mel na ni Pikine sas nañ la Pikine yaakaar nañ la Pikine koo wax da lay wax ne ndam la ñuy jëli roi bi la ñuy jëli lan ngay dalale xel waa Pikine yi nga xam ne dañu am yaakaar ci sëll bi nga xam ne tey nekkatul sëll. waaw damay may tuuti ma gërëm ku mel ni Lamine Naar borom États-Unis bu baax a baax xam na di gërëm Lamine Naar maa ngi gërëm bu baax a baax di gërëm Tafa Ba bu baax a baax Tafa Ba maa ngi koy di ko gërëm ah di gërëm Abdoulaye Abdoulaye Sylla maa ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm Abdoulaye Sylla gis naa nu bu baax a baax bu baax a baax di gërëm nag ñëpp di gërëm Modou Gueye di gërëm euh, Modou Fall Modou Fall président Pikine gis naa nu mu taxawoo bu baax a baax bu baax baax di ko gërëm képp ku ma jàppale Issa Abel maire de la ville ñëpp Pikine ku nekk Pikine rek takk ndomba ndomba tànk rek gis naa taxaw na ma maa lay yàlla na suñu borom defal jàmm ñun ñëpp jërëjëf di gërëm nag du ma gërëm sama mag sama xarit Ibrahima Diop maa ngi koy sant bu baax a baax xëy na nag xa gis naa ne ma taxaw bu baax Ibrahima Diop maa ngi koy ñaanal yàlla ko suñu borom defal jàmm yàlla ko yàlla defal jàmm. alors léegi ci Ama ñu ndax Ama mi ngi ci forme wala nekkul ci forme bi ma la gisee tey dafa mel ni gars yi yar nañ la métti parce que da ngaa jeex lan ngay dalale xel waa bi ci état de forme ci état santé ba nga xam ni ñoom bu ñëw dañuy ànd ak xel mu dal ak fit bu dal. ak li nga xam ne mooy yaakaar bi mat sëkk. waaw lan lu may dalal waa xelu Pikine mooy ndam dafa am loo xam ne dama ko topp ay at i at i at kon waa Pikine ndam rek amul lu ma leen sas nañ ma toog xaar lu ñu war a def yëpp def nañ ko man maa si des man Amadou Baldé doomu Fallaye Baldé man maa si des dañ tax maa ñëw bu ma sas dara bu ma wax dara man maa si des te dama ne la bis boobu yomb na góor xam na góor lu mu dem mu yomb su moom bis boobu yomb na góor yàlla te góor yàlla laa te dama koy jëli bu neexee yàlla la alors Amadou waaw équipe bi yëpp def ñu ko jël ñëpp benn un an benn kii xam naa dégradé bu ñu doon dégradé mooy cat xam nga roi des arènes cat lay taxaw mu mu kaa mu roxos mu def si mais amaana ñu gis ni ñu gis ni Sénégalais yi ñu ëpp ci Sénégalais yi dañ ne yàggee arrangé wul Ama Baldé ndax physiquement nit ñi moo gën a taxaw. am na combat bu gaaw ci combat bi lan ngay tontu ci loolu ndax Ama Baldé mënul bëri combat bu yàgg combat à l'égime loolu naka nga ko préparé ak lan. non préparé wu ma dara damaa tëdd di nelaw rek waaw bu bis ba luy ndam dinaa ko indiwaat ak yéen damaa tëdd di nelaw alors avant li nga xam ne moom la ñuy wax mooy bés bu mag la ñaari champion yu mag war ko daje ñaari gox fa daje ñu bëri am njàqare ci wàllu euh, violence ak lu mel ban appel ngay lancé ci côté boobu pour que ñëpp daal muy waa Pikine muy waa Parcelles ak ku mu yaa ngi ko dund yéen a digaale bu ñu tëjee barrière yi yéen ñaar dama ne la ambiance moo bëri waaw man du ma si borom ñu topp sama ginnaaw xam nañ man maay kan jouvent pont xeer puso du jub moo dina yoru yàq bi moom laay dem jëndi ñoom laa amante ak ñoom képp ku ko sànni xeer képp ku ko am ma leen man man man man lañ yàpp man lañ yaakaar bi ma doyloo nañ toog xaar dama ne la bis boobu yomb na ko le mot de la fin ñu bàyyi la nga delluwaat ci entraînement yi parce que yaakaar naa ni fii boobu waaw damay sant yàlla di sant nag di sant sama àndandoo yi di sant sama àndandoo bu baax a baax a baax a baax képp képp ku ma képp képp képp ku sama àndandoo maa lay sant bu baax a baax di la gërëm xam na di la gërëm bu baax sama àndandoo yi bàyyiwuñ ma benn yoon xam na ku si mel ni Malaw Seras ku si mel ni Tafa Alam Da Bas Fane Gaynde xam na buuba ah Maodo Deux ma tomb comprendre gars yëpp maa leen sant di leen gërëm bu baax a baax taxaw nañu bu baax a baax Gëmsa Abdourahmane Ibra maa ngi gërëm Del waaw maa ngi koy gërëm bu baax di gërëm di euh, euh, maa koy gërëm bu baax a baax baax. Pape Sarr nag di ko ñaanal yàlla na suñu borom dem jaam di gërëm waa ASM bu baax a baax waa ASM waa leen sant bu baax xam ne di gërëm waa Kolda di gërëm ñëpp xam nga moo tax duñ gaax maa ngi koy bàyyi lépp di ko ñaanal yàlla na suñu borom jaam di gërëm nag Iran bu baax a baax kon nu ma la waxee rek kon noonu maa ngi sant yàlla bu baax a baax xam nga gërëm maa leen maa leen baax waa Boura Yane maa leen sant waa Mbour ñëpp maa leen gërëm waa Pikine bu baax a baax maa ngi sant yàlla bu baax a baax di gërëm taxaaka bu baax a baax yàlla na suñu ama laaj bu